li ma la mën a wax mooy la position du parti la position officielle du parti mooy ñun dàq nañu report bi ànduñu ci violation constitution bi Macky sàll def mu flagrante ànduñu ci te loolu loolu dañ ci war a wax c'est-à-dire xam nga problème yi problème yi danay naqaree lijjanti parce que li ngay wax gis jaan doodoo ko topp ca watat ba dafay xaw nduru loolu tey su amee ku ñuy waxal ci Sénégal ca idris dana génn ca dana wax ci li nga ko déglu mooy Macky dafay fàttali ko fal 2012 bi ñuy jub élection présidentielle waxuma classe politique sénégalaise waxuma l'ancien président sortant non CEDEAO ñoo waxtaan ak les la classe politique sénégalaise pour toxal élection présidentielle yi yàlla na ko yàlla yërëm euh, ba dara Cissé ak Mame Mbaye Niang ñoo fekk Olusegun Obasanjo fa mu doon defee conférence de presse ñu arrêté conférence de presse bu ni ko dañuy dem élection ay élection kenn du ko dàq te élection yooyu li tax ñu fal ci Macky Sall du woon waxi troisième mandat Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dem na ba ni nanu ma may deux ans ma eggali sama mandat. waaw léegi il faut. ma ñëw. Macky Sall porox ndoll ci loolu Abdoulaye Wade wax daan ne man sama mandat bi doonte set ans la su ma faloo dinaa ko wàññi deux ans kon tey situation si on se retrouve sur la dans la même situation ko en 2016 mooy président waxoon askan bi yëpp ni dafay wàññi mandat mu trouver ay subterfuge ba deful loolu exactement la même situation dañuy xool Birama li ñuy tiit mooy fan la ñu jëm suba constitution bi yéen ñu nekk assemblée nationale nekk ay député li ñu wax ñoom dérogation ci article 31 du euh, de la constitution xam nga ni man ta nekk yow xam nga ni en tant que député wóor na la ni disposition bi ñu def ci seen projet loi bi mu ñu jël ko ñu la le président poursuit son mandat xawma mais loolu mënul nekk disposition dérogative loolu disposition transitoire la war a nekk te disposition transitoire boobu dafa am lu ci manqué dafa am lu ci manqué seen nga tey bu journal officiel moom bu promulgué loi bi journal officiel publié ko da ngay fekk ci constitution bi ci article 31 ñu def ci le président actuel poursuit son mandat loolu mënta nekk ci constitution kon donc disposition transitoire la mën a nekk te disposition transitoire bi dafa waroon leeral la volonté du président moo ko wax ci discours am mooy damay organiser ay élections libre transparentes et inclusives te duma ci bokk on pouvait dire le président de la République poursuit son mandat en cours jusqu'à l'organisation de nouvelles élections libres, transparentes et inclusives dont il ne sera pas candidat xam nga lu may tiit moo tax l'heure est grave article 27 bi mujj dafa wax ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ñoom ñu jaay ñu démb projet de loi boo xamante ni projet de loi bi ñoom ñu ko tuddee dérogation xanaa kon ñoom transition lan ñu jaay mais Birama di un an yi Macky Sall di yokk ci mandat bi foo koy ranger da nga koy dugal ci biir mandat bi le mandat du président de la République est intangible kenn mënu ko yokk kenn mënu ko waaj xanaa kon mandat de transition lay nekk su ñu amee un an de transition le même Macky Sall puisque ci woyu bay for naa ni mook euh, premier ministre am di candidat am neexootuñu su fekkee ne loolu am na waaw le président de la le mandat. intangibilité boobu nga wax sax moom moo ko moom moo ko ci dugal. en ci référendum bu 2000 li may tiit. li may tiit li may tiit. waaw mooy lii ñëw. dañ ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. léegi nag def nga deux mandats consécutifs transition dox ci diggante bi est-ce que moom du ñëwaat nit. ah gars yi jaay dem ba dispose euh, projet de loi bi est-ce que duñu ñëwaat assemblée nationale naan ne ah deux mandats consécutifs wax mais transition un an dox la kon war na mën a bokkaat kon moom war na mën a bokkaat d'accord ah oui c'est-à-dire Birama ah mbir ah mi dafa gën a xóot lu Idrissa Seck wax ak kañ nga war a wax mbir mi dafa toll foo xamante ni képp kuy sénégalais réew mi ñor la da ngay da ngay wax dëgg gi ca yàlla tax parce que Sénégal bu tàkkee kenn du ci